doorte ouverture siège mouvement citoyen Diourbel d'abord siège bi nag ibbi nañ ko ci jàmm jiite ci ñi nga xam ne ñooy kilifa diine yi ñu ñaanal ñu teg ñu ci yoon yoon boo xam ne moo jëmale Diourbel kam kanam mu nekk siège boo xam ne bi ibbil nañ ko bépp Diourbel waa bépp citoyen mu dëkk biir Njaareem boo amee doléance nga am bëgg-bëgg wala nga am loo xam ne da nga koy mébét mën nga ñëw ñu waxtaan ci wala nga déposer une lettre au du secrétaire comme ça ñu saytu ko lu ñu ci mënti def ñu def ko. Diourbel d'abord biñ koy sos euh, ça fait deux ans à peu près deux ans alors li ko jiitu c'est mouvement associatif au sein de Médina Toul euh, mouvement associatif bi li ko taxoon a jóg mooy le social maanaam saytu lépp li nga xam ne ay jafe-jafe la ci askan bi muy wàllu ndool wàllu jafe-jafe en en termes d'emploi dans tous les secteurs boo xoolee secteur religieux secteur de la santé. secteur du sport de la culture ñu doon dugal suñu loxo di leen jàppale parce que li ñu privilégié mooy jàppale askanu Jurbel donc bépp citoyen boo xam ne yaa ngi nekk ci biir gox bi yaa ngi ci doon gis sa bopp donc bi ñu dawalee depuis 2007 di def action sociale ci la ñu créer le mouvement citoyen Diourbel d'abord pour aller dans le sens de la citoyenneté plus de citoyenneté envers les population plus de citoyenneté également vis-à-vis de nos concitoyens parce que Diourbel dafa nekk ci biir dëkk boo xam ne bii c'est quatorze régions mu nekk ci région yi nga xam ne ñoo gën a reculer donc loolu noonu moo ñu metti ñu ne danañ créer li nga xam ne mooy mouvement citoyen mais entrer dans la politique aussi parce que euh, politique boo ko deful da nga koy subir donc mieux vaut ñun ñu dugg ci politique bi langue politique bi joxe suñu kàddu joxe suñu opinion teg ay projet et programme politique yoo xam ne yi askan bi dinañ gis seen bopp donc lool moo tax ñu sànc li nga xam ne mooy mouvement citoyen Diourbel d'abord ñun ñëpp mën nañ si regrouper wu on peut discuter de toutes les questions mais questions yi nga xam ne primordialement ça concerne les Diourbellois muy question sociale question emploi question problème d santé mooy comme ni ma ko waxee léegi rek assainissement donc logement tout ce qui est ce qui Euh, euh, constitue aujourd'hui benn benn benn fléau boo xam ne dañ ko war a combattre surtout le problème des jeunes mooy jeunes yi nga xam ne dañuy jël gaalu loo cay di dem immigration clandestine seen bakkan di ci des seen waajur yi di ñàkk ñi nga xam ne dañu liggéey mënuñu am comme bu ñu yóbbu seen biir kër ñi nga xam ne aussi dañuy jàng am ay maîtrise mënuñu am liggéey donc problème yooyu lañu gis ñu ne nañ dugg ci langue politique bi pourquoi pas parce que on est jeune donc on appelle euh, tous jeunes à dans ce mouvement là pour changer la done Le problème de l'emploi, c'est un fléau. Et ça a toujours été le cas. Hein. Au Sénégal, on toujours eu un problème d'emploi. On a d'abord eu un problème maanaam nit Nitke Am, euh, euh, professionnalisme, bo ne dañ ko mën mëna duggal fenn mu liggéey liggéey bi nga xamné mom nga sant bu weesoo loolu euh, l'emploi maanaam fi nge dugal nit ki loolu dafa jafe li ko waral nag lenn la mooy les politiques ak programme yi ñu teg pour la jeunesse dafa baaxul déjà la formation moom moo adapté wul à l'emploi à l'insertion automatique boo paree sa jàng donc li ñuy jàng fële université ay matière générale la parce que da ngay jàng droit li la yàlla mën a may rek mooy nga def nga concours nga jàll nekk euh, nekk fonctionnaire bu dul loolu formation professionnelle yi suñ ko privilégié je vois que nag politique yu bees yi commencé nañu teg li nga xam ne mooy formation professionnelle qualifiante boo xam ne dangay ngay gën rek liggéey donc sur ce point là je pense que peut-être les politiciens ont adopté une démarche dans le sens de créer de faire promouvoir l'employabilité d'abord et de créer des emplois pour les jeunesses léegi ñun en termes de de projet et programme politique la jeunesse ce qu'on pose c'est quoi d'abord il faut de l'emploi pour que la pauvreté se réduise. Il faut également créer des cadres d'insertion. Cadre d'insertion, c'est quoi C'est créer des entreprises à Durbel. Moi, je propose de créer des entreprises au nombre de 2000 ou 3000 entreprises à Durbel qui vont avoir des sièges à Durbel, domiciliés à Durbel, un domicile fiscal, géré par des citoyens durbelois, mais qui traitent, nous avons ak yeneen entreprise yu nekk Dakar wala ñu nekk bitim réew condition yi ñuy teg mooy lépp loo xam ne dañ koy teg muy marché public fii ci njaareem benn entreprise bu dëkk beneen région du nekk priorité li nekk priorité mooy entreprise bi nga xam ne ay jeunesse Diourbellois ñoom ñoo ko dirigé te Diourbel lañ nekk donc ñoom la ñuy def priorité la deuxième condition c'est quoi entreprise yooyu noonu ñu accepter volontairement di fay li nga xam ne mooy l'impôt parce que l'impôt boo ko fayul mënoo wax développement te budget municipalité fi mu toll actuellement li wax li tax mu toll foofu noonu c'est parce que nit ñi fayuñu impôt dañ ko war a fayee donc ñu bàyyi ci xel bu baax je pense que le problème de l'emploi se peut se régler de cette façon là mais en réduisant la pauvreté en même temps parce que pauvreté moom dafa nekk loo xam ne nii mooy le socle le b.a.-ba bi nga xam ne moom la population jurbel jurbelois yi di dund te il est temps que ñu dugal ci suñu loxo pour que ñëpp gis ci seen bopp